non dajale bi dañoo ñëw fii pour manifester notre mécontentement à travers le président à travers notre nouveau coach loolu moo waral rassemblement bi fii tey. nekk le président moo Modou Gueye tey ji bu amee base équipe bi ñu supporters ñoo ko fal tey ji bu certaines décisions bu koy jël war na consulter comité directeur bi consulter supporters AS Pikine yi parce que y' a certaines décisions yoo xam ne boo koy jël waroo koy jël nii à la légère ñun li ñuy naqarlu mooy comment ça mu jël suñu suñu équipe bu toll ni AS Pikine di ko fal un un nouveau coach boo xam ne nii il n'a pas de vécu dañ ko fal équipe junior yi même pas deux mois ñu yéegal ko intérim bu ko fal équipe A loolu moo ñu naqari ñu supporters yi ñëpp te loolu du fi am incha no taxawaay bi leen la ah. dañ koy xeex à notre à notre à notre manière xuloowuñu saagawuñu xeexuñu li ñu bëgg moom lay def mooy équipe bi du entraîner si du entraîner si semaine bi nii yëpp tant que décision bi changé wu ko. bu yeboo ñu Teungueth FC dóor bu yeboo nañu Jaraaf dóor bu yeboo nañ dem Ligue 2 mais équipe moo dul entraîné sur sur le règne de de Ahmed Soli voilà loolu mooy décision bi non ñun amuñu choix bu ñuy porté amuñu benn choix bu ñuy jox à kii que ce soit la personne de Ahmed Soli nañu nañu nous importe peu ñun amuñu benn problème ak la personne de Ahmed Soli gis nga équipe dafa am nu muy doxee mënoo fi jël un un coach bu am ni Massamba Cissé mboo dem dafa def si équipe bi 12 ans xaw ma 15 ans yor équipe bi en tant que coach principal quatre ans def fi ay résultats nga bëgg fi jël koo xam ne ni amul niveau. musul yor benn club l'année passée dafa dafa joué équipe bi Teungueth en tant que joueur l'année la cette année mu bëgg jël équipe bu toll ne AS Pikine bu ko ko coaché loolu c'est inadmissible duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. non lépp a ngi ci dañuy ragal le dañuy ragal le même bu fekkee am na ay diplôme en tant que entraîneur noo ko dem exercer feneen ba am ci ay diplôme bañu ñu mu yor équipe boo wanee ay compétence am su su waree jël équipe A bi ñu supporter ñooy jël mission bi porté ko mu yor suñu équipe A mais mais c'est pas le moment pour l'instant. non dañ koy wax mu leer li ñu wax nii bu si delluwul ginnaaw équipe du entraîner toute la semaine. ñun aussi dañu dellu ginnaaw si décision bi xam ne jël nañ ko Ameth Solly du diriger suñu équipe bu toll ne AS Pikine AS Pikine nekkul dëkk bu nekkul boo xam ne nii dafa féete benn boor parce que dañuy ay rumeur comme quoi que ne AS Pikine naataange la yem Icotaf tel n'est pas le cas AS Pikine 16 communes la fii ba Mbaaw dañ si am seen droit si biir équipe bi président Mour Gueye dañuy wax lii nii boo si dellul ginnaaw du entraîner semaine bi wàccee parce que da nga nekk sa mandat ren lay jeex comprendre nga décision yi ñu bëgg dañu koy jël oto ñu coach bu am expérience AS Ligue 1 nga teg ko suñu équipe mu diriger bu ko amul nañ bàyyi nga mu gérer intérim bi mais amee solide yor suñu équipe tey du ko yor ëllëg loolu mooy wax ji. da kay wax waaw xaaral c'est bon ñu bon c'est bon non non waaye monsieur ko ñu li ñuy wax ñun bañuñu ko bu fekkee jour la. fekkee joueur la nangul nañ ko bu fekkee coach la nangul nañ ko ko mais tey jii expérience bi nga xam ne am na ko si dans le monde sport si football amul benn trophée wala benn loo xam ne def ko biir AS Pikine amul leen lu ñu indi en tant que joueur d' abord parce que tey jii fekkoon nañ koy xam ne nii vécu la Adama Mbaye la ñu jox suñu équipe parce que pour dans cette équipe trophée bu dugg biir bi Adama Mbaye moo ko fi dugal parce que tey quoi que ce soit xaw a attaquant xaw a lan la loolu yoon ne xam pour lan la pour lan la ay calmant Adama ah Mbaye bi ñu ko solaa mu dugg ci ko comprendre nga amee solide du yor suñu équipe tey du ëllëg président Mor Gueye man message ma lay lancé mooy message bi xam ne supporter yëpp ñoo koy wax tey jii dañ laa fal si falin bu rafet comprendre nga bi ngay bëgg équipe bi fukki morom ñoo ko bëggandoo ak yow fal dañoo xañ ñoo ñëpp jox ko am si yow d'accord naa nga ñëw ba fii nga consulter ñi nga war a consulter nga jël équipe bi jox amee solide d'accord nañ si mais mënoo toog Qatar équipe di dund di dund des difficultés nga toog ne du jour au lendemain ñu ne diw mooy nekk suñu coach loolu duñ ko d'accord donc dañ lay ñaan nga dellu si ginnaaw boo si dellu ginnaaw li waxoon la waxaat équipe bi du entraîner non non non ñun dañ koy wax lancer joueurs yi suñu problème suñu diggante ak joueurs ñun am na joueurs xam nii dañuy u daal dañuy jënd leen ay dàll match day jeex fii si kaw gradé ñu cotiser 1000 francs 500 2000 ba mu mat benn somme 30 000 francs jox ko joueur bi nga xam ne moo nekk l'homme du match si biir match kon ñu amuñu ak benn joueur joueur ñun ak ñoom ñoo bokk li ñuy xeex ñun dañu bëgg ñu nekk dans de très bonnes conditions ñu am coach bu am niveau bu leen yor amuñu benn problème ak joueur problème bi ki ñu amal problème mooy le président de l'AS Pikine et notre nouveau coach voilà